dénonçons aussi ñu ngi ñaw lu bu baax li ñenn ci ay entreprise di salfaañee liberté syndicale yi ndax nag ba tey am na ay entreprise yoo xam ne nanguwuñu ne seen employé yi dañoo war a taxawal ab syndicat ba tax na sax ñenn ñi dañu leen di dàq te xamuñ ne liberté syndicale convention yi ñu signé ak biti réew bokk na ca convention bu 87 ak bu 98 ñeel organisation internationale du travail moom moo ko maye te sax nag suñu constitution moom itam joxe na boobu liberté vous voulez, c'est bien écrit dans la Constitution du Sénégal.